neex boo xam ne. surprise. waaw. ah surprise de toutes les surprises sont bonnes. surtout bii. ah, ah yaa ñu la jël Ajara la jël nga ñu ñun daal suñu goro bi ba mu see si kër gi ba tey jàmm jeex na Ajara la jël nga ñu nga gàddu sa valise bi di mel ni xorandong. waaw may mais mais kii sama yaay lay wax. waaw non kii dafa réew li muy def nii. wala non yow foo jëm dafa ndànk demee lan moo tax muy wax li sama yaay. yow doo déglu jox ma téléphone bi fii gis nga lii nii moo waral ma nar a am indépendant bu mag ci biir kër gi kii maa ko ko def loo. yaa ko wax moo wax li sama yaay. maa ko ko wax xoolal néegam laa ko fekk tuur a bu ka pare santage ko. moo tax. yow yaa ko fekk néegam. waaw dóor ko ni ko mu wax lii mu wax ko. sama kanam. laa ilaha illa ci gën a neex ka may ma ne ko waxal mel ni man fekkewu ma dara. kii pièce à conviction la ko tubaab di tuddee. merci papa. laa ilaha illallah. nee na tuuti damaa bëgg ñu waxtaan. daam ñaari kilifa yu ma bëgg. Hmm? mais xuma kan laa ci tànn te doon naa ci wax ak mbay fan yee mais moom daal nee na bëggul ko remplacer papaam. mbay bàyyi ko sama loxo loolu dinaa ko gérer moom tamit ñu dañaa soxla paa jantal bu ñuy jiitee naafile ci koor gi ah soxla naa ko de ndax ma am ku may wéttali sax boobaa mbaa xam nga ne paa bu ñëwee di nga commencé dugguwaay pour nga xam ni fàttewu ma démb de togg rek laay def yaay mère filing paaj ku dugg ci kër gi moom ba fekk fi mbay dina metti trop yow xam nga ne kon lii sama yaay su ko yëgee dëkk bi toj rasat lay def xoolal wuy ma sa arma ngi nii ku nekk armée Sénégal ak armée Gambie ku nekk yor na clash Kalashnikov yow bii mooy sa Kalashnikov. instant bi dama kontaan. man mi kontaan na. xoolal da ko tënc. kii bàyyi ko man wan ko ni yow tukkuleeru masina sax Fuuta Jaloo. yow muy muy gérer ko di dem di dikk di dem xool eh man yow laa àndal. léegi xam nga nu ñuy def. waaw bàyyi ma nopp tuuti nga xool ma maa ngi dem di nga dégg li ma koy def. nii nii nga koy tàmm. A la. ah papa toogal fi rek may ma noppi yow. maa ngi toog fii. maa ngi ñëw. laa ilaaha illallah. waay waay waay waay sama fula ardo bi waay ma ni woon nag am nga xel bii. laa ilaaha illallah. non mais kii man man man foog mu mbay benn tamit. sama problème mais mbay daal la ma jaaxal. aywa aywa. tàmm na bi. eh, eh. ay sa mbay da ngay jël ceeb bi mbaay yow ayoo de. nit sa yoon ci daanub ceeb. dara àdduna amul solo weeru koor gi ñu nekk nii dañuy jàppalante rek. waaw. kañ ngeen commencé jàppalante weeru koor ak beneen war a ci yem. ah mbaay daana xàmmeetuma la. eh da tànn ceeb bi wala doo tànn ceeb bi. ay sa kéeg lay wut eh, ba mu yee jël ceeb. garaaw. am na am solo dañoo nekk ci weeru koor waaye rek ba taal jeer bi. wuy wuy lii da la ñuy wax maraka jiit nekk jiit ni na fit ay waay xattaatoor yi laa ilaaha illa jigéen jigéen ay garabam. du nay Mori Mbaye xàmmeetuma la de yow jéeg ni yow taxaw di la tànnal ma ceeb nga koy tànnal ceeb. Aïssa bay li nga ma wo li ma nara def fi wo ma ci xex ma nara def baram bay gu dib laali dem ak mom ci kaw mbay nga nar maa bàyyi ak xex bi. ma la xamal ben affaire de ki de li ma koy waajal. waajoo dara nga waajul waye yàlla baxna na. nga sa xol sedd. sama xol kay